alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu Fayda bi Kossy TV cosaanu Fayda bi. min qabliha tibta fi zilaali wa fi mustawdain xaysu yuxsafu lwaraqu summa abata albilaada la basharun anta wala mudgat wala alaqu mutaharan tarkabu safina waqat الجم نسرا يا الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاقه أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا سبقنا سرات بلا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المختار العظيم متى يبدو في داجي البهيم جبينه يلوح مثل مصباحي تجى المتوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال ابن الخمس المؤذن وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد تحقيق عطافيه أو أثناء بردتي ما يعلم الله من لين ومن كرم إن رسول لسيف يصطدع به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 إلا ما كن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنية ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي تهنئة ربيعي حتي شفيعي بالمنطق لا بديعي يا يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي تهنئة ربيعي بملحتي شفيعي بالمنطق لا بديعي حبيبي يا محمد أهلا بشار المولد شر العلا والسدد شر النبي أحمد شر ربيع الأول يا ربيع بمن حقي سبيعي بمنطق لا بديعي أرني بها محمد قد خص بالربيع إذ كان كربيع للأرض والشفيع بكل خاطب معضل رحلة ربيع للحبيب شفيع بالمنتف لا بديع حبيبها أهلا بشار الفرح شر الذهاب الترحي وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل يا ربي من حقي شفيع بمنطق لا بديع شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدور موشح بين الشهور متوج مكلل ربيعي بمنحتي شفيعي أهلا بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز خاتم الملل بمن حديث سبيعي بمن تقبل بديعي أخي بها أهلا بشار الخاتم شر النبي القاسم وفاتحين وخاتمين وآخرين وأولين أهلا بشار الناصري للحق شار الأمري بعرف شر الظاهر بكل واص نكملي أخبارك بمن حقي الشفيع بمن تقل بديعي بها أهلا بشار الهادي لمنهج الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل يحيي أدوار ربيعي بمن خطي صبيعي بمنصب بديعي عظيم يا محمد أهلا بشار سيدي لأحمر وأسود من حاز سبت سددي يوم اعتذار رسلي بمن حدي سفيعي بمن ذكي بديعي الغيب يا وقد كفى كلها أباها وكلها بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل اهنئة ربيعي بمنحتي شفيعي بمصدق الأبدي يا لها من خطى جوابه في الحطة من ربه سل تعطى واشفع لدينا تقبلي ربيع لمن حكي شفيعي بمنطق لا بديع بها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 لمن في سبيعي منطق لا بديعي أخي بها شر الذي أسره إله اختاره من حبه خيره عند القضاء الأجل تهني ربي في صفيعي بالمنطق لا بديعي بها شر الذي ما ساق عليه جبريل هبط بكل نور معتلي ربيعي بمن حدي سفيعي بالمنطق لا بديع أرحي بها محمدي أهلا بليل اثني عشر فيه ويومه الأغر وطيب ذلك سحر ونور ربيعي الغيب منطق لا بديل يا محمد أهلا بكل ما ظهر من خارق يعلم في شرف البصر إلى مقامه العلي ربيع بمدحته السبيع بالمنطق لا بديع بها محمد وما رأت من عجاب آمنة حين النصارى ثم سرى بسجدة مبتهلة تهنئة ربيعي بمنحتي صبيعي بمنطق لا بديل كما تدل الزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بصنم المجدل تهنئة ربيعي بمنحتي صبيعي بالمنطق لا بديل بها وغادتي البحار وجفتي الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجلي تهني أنوار ربيعي بوقتي صفيعي بالمنطق لا بريء بها وجنهم في نكدي لرميها بالرصد وعزلها عم قديم من أجل خير رسله مئة ربيع بمنحة سبيع بمنطق الأبد أطيب يا ورنة شيطاني جر عظيم شاني من أوضح البرهان لعظم ما بيبتلي تهنئة ربيعي بمنحة سبيع من سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي تهنئة ربيعي بمعتي شفيعي بالمنطق لا بديعي أهدي بها بحمد الأولين الأوالاخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق لا بديع أرضي بها أهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث السر الكوني مقدمه المبجل تهنئة ربيعي بمدحتي صفيعي بالمنطق لا بديعي أرضي بها أهلا بشار العجمي إبريل شار الكرمي أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين ربي بمدحتي صفيعي بالمنطق لا بديع أطيبها أكرم بيوم صار عشرين واستنارا لمن حوى الفخارا وغفرة من منزله تذكرة ربيعي بمدحتي صفيعي بالمنطق لا بديعي أهلي بها محمد أهلا بشار النيسان مولد خير الإنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل مئة ربيع لمن حقي شفيعي بالمنطق لا بديعي أرضي بها أهلا بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكامل المكمل تهنئة ربيعي بمنحتي صفيعي بالمنطق لا بديعي أبدي بها قد تمت الليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل مئة ربيع بمدحة صفير بالمنطق لا بديع أرضي بها تهنئة الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي تهنئة الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي أبغي بها الجمع به يوما وليل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي مئة ربيع بمن حقي السبيع بالمنطق لا بديه أبدي بها أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي تهنئة ربيعي بمدحتي صفيعي بالمنطق لا بديع أبغي بها مؤملي والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل تهنئة ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق لا بديع الربيع وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاي عبدك العلي تهنئة ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق لا بديع الربيع صلى وسلم الإله عليه أفضل السلام ما دام كونه الإله من أبد لأزل لمنحتي سفيعي بالمنطق لا بديه أرضي بها وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل تهنئة ربيعي لمن أخي شفيعي بالمنطق لا بديعي أرضي بها محمد بجاهم يا إلهي اغفر لناظمها واسمح لقاريها وللذي حضرها اللهم بخفي لطف وكريم نوائب الدهر ما أفاته الكدر أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين macha allah jërëjëf jërëjëf euh, mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax di jégalu bu baax a baax a baax ci tardement bi waaye nag euh, pour jox leen information bi mu nekk ne timis gi ba léegi mu ngi taw taw bu rëy boo xamante ne nii dëgg-dëgg euh, foo ko app rek weesu na ko kon tey effort yi nga xamante ne nii moo ngeen gisee suñu abiyaas da ngeen ñi xam ne rek ne lu xamante ne nii lu mënta ñàkk la mu dab ñi lool waaye nag respecté leen loolu te fonk leen loolu moo tax tey ñu ne lu métti métti rek danañ xuus taw bi ñëw ngir andil leen euh, li nga xamante ne nii moo nekk Mawlid bi xam ne adduna bi yëpp ñu ngi koy euh, fuglu comme ni nga ko defee woon démb ngeen may ma kër yi rek su ko defee su ma leen andilee dëkk bu yanji bi dëkk bu sell bi nga xamante ne tey moo nekk sele ba yoonu julit yi waaye tamit ngeen euh, taaxeerlu tuuti ñu andil leen benn imam borom xam kenn koo xamante ne nii tey jii dëgg-dëgg dana ñu lenn si li nga xamante ne nii moom la Seydi Aliou doon yëkkati léegi nii si Mawlid bi waaye tamit mu leeral ñu leen si Mawlid ak burdu lan mooy seen différence ak lan la Medina baay taxawee tey si Mawlud bi su ko defee rek ñu ñu daal di andi euh, programme bi fii la nga xamante ne moo nekk si Kossy yi euh, te defe naa lu ñu leen ñaan ngeen defal ñu ko kon euh, defe naa li ma bëgg rek mooy yéen ñi nga xamante ne nii yéen nekk soppe yi xarit yi ngeen teel ma bu baax a baax kër yi ngeen andil ma ko partagel ma liggéey bi te commentaire ko su ko defee de dëgg-dëgg dañ ànd ak yéen léegi nii si liggéey bi ndëkk bu yaa ngi baa ngi noonu waaye di jégalu di leen wax xamal lii rek moo nekk tey jafe-jafe bi nga xamante ne ni moom la Kossy TV bi amoon ah, moo nekk ne si wàllu liggéey bi nga xamante ne nii am nañ ko mooy taw bu métti rek boo xamante ne nii wàcc na tey fii ci Medina Baye waaye taw boo xamante ne nii kenn ku nekk si ñun bett nañu bett gu rëy loolu su ko defee ngeen daal di am information bi wane ne lii moo am tey fii ci Medina Baye moo tax liggéey bi ah, tardement bi yéex waaye tamit di jégalu bu baax a baax sponsor yi nga xamante ne nii ñu ngi àndoon ak ñoom si liggéey bi tey nii la na Baye dikkee waaye tey nii moo am tey ci na baay muy taw bu métti boo xamante ne nii foo ko app rek defe naa weesu ko kon ñu ngi ñaan yàlla euh, taw bi yàlla nekk ndoxam jàmm yàlla may ñu si tawfiq waaye di gërëm bu baax a baax Mara Kebe di Mamour Kebe ñu ngi jégalu bu baax a baax gis nga waxtu wi nga xamante ne ni ñu ngi wax ak yéen rek ci la courant bi coupé ndax waxtu wi ñu toll nii defar defaraat yi bëri na fii mi dina bàyyi lool kon ñu ngi si jégalu tardement bi si am yëpp rek yéen ñu ne suñuy ñi nga xamante ne ni waxtu wu nekk rek tardement bi su waree am yéen leen siy jégalu gis ngeen dëkk bu sell bi dëkk bi nga xamante ne tey moo nekk sell ba yoonu jullit yi àddina bi yëpp di ko fuglu di ko waajal. oustaz eh, na ñëw eh, taxaw su ko defee rek ñu am ay kàddu yu gàtt oustaz si eh, kàddu yu gàtt rek comme te tey ñu ngi nawet bi te gis nga ni jamono bi tëddee waxtu wi ñu toll nii ñu am mbégte bu baax a baax lenn si imam Muxtaar Silla mi nga xamante ne ni borom xam-xam bu yaatu imam yaa ngi en direct si Kossy TV àdduna bi ñu ngi lay bàyyi xel ñu war a tënk lenn si mawlud ak burdu nan la ko Medina Baye di dundee waaye tamit tey fii li nga xamante ne nii fii la Seydi Aliou euh, tëralee jeexalee ko nga nekk borom xam-xam am looy looy noté ban kàddu rek moom nga am tey pour ñu yokk téléspectateurs yi waaye tamit di leen xamal ne dem information bi li amal tardement bi mooy taw beeg ndox mu bëri mi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa mbokku téléspectateurs yi nga xamante yeneen ànd ak ñun ci Kossy TV bi nga xam ne li may wax dañ na àdduna bi yëpp ñu tuddee ko dëkk boobu nga xam ne mooy man baaxul fayda foofu nga xamante ne fa la fayda bi ballee ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ndokkeel bi nag dañ koy jëlee ci waxu Mawlana Cheikh Ibrahim bi nga xam ne moom la ndokkaloon boppam ba muy ndokkeel boppam dafa wax ne hani an li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun bada li naadirin al jamaaluhu hilaalun rabbiin fii jaa muhammadun fatammalana al bushra wa amal lu demee ni jabet ak lu mel ni feebaru res loolu moo sabab waxtaan bi ñu koy woo bépp jullit képp ku yàlla man loo rek nga ñëw fii ci tànt kon kooku baayam kii daan def ni lii di mawlid bi nga xamante ne àdduna boobu ba léegi foo ko stater da ngay dégg ñu laaj kii kan la kii kan la kooku moom mooy doomi El Hadj Abdoulaye boobu ak kan ak doomi yaa bu Cissé bi nga xamante ne doomu Seydi Ali Cissé la Seyda Ali Cissé ko ne xamu na ne moom mooy baabul xadra moom mooy xalamul xadra kooku mooy Mawlana Cheikh Ali Cissé moo nekk maam moom lañ ko tuddee. ba pare nag yëngu ci wàll li nga xam ne wàllum diplomate wàllum diplomatie bi mu nekk euh, yëngu ci wàllu diplomate yi nekk un diplomate nekkoon nekk walla nekk euh, deuxième conseil ci ambassade bu Sénégal bu nekk ci Maroc kon kooku mooy ki nga xamante ne moom ngeen jàkkaarloo noonu. muy jàng li nga xam mooy mawlid mawlid nag mooy moo Mawlana Cheikh Ibrahim ñes dafa fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa li nga xam ne muy bëddi Ibnu Abbas li mu woy muy tëx ni atura bi bi nga xamante ne moom la woy suñuy différencé seen Moussa li nga wax diggante mawlid ak burda damay faral sax nit ñi dañuy dégg ndax burda Medina ba commencé gut soo ma koy dama laan ne burdaaguñ buñ balaa ñu burda mooy dañuy gàmmu ba ci fajar gi doog a burda burdu nekk li ñuy def moo tudd burdu burdu téere la boo xamante ne Mouhamadul Busayri moo ko moo ko bind lii nag mawlid la boo xamante ne muy tahni atu rabi bi nga xam ne euh, ibnu batti ibnu abbas moo ko def chapeau bi mooy li bàyyi la Cheikh Ibrahima Niass def jëlee ko ci ay woy xasida yoo xamante ay woy yu bëri jël ko boolante ko commencé ko ci min qabliha tibtu fi dilal wa fi mustawdain boo ñëwee ci tahni atu rabi bi man taqi ba di bi mit xatisha bi man taqi ba di abri biya mu amali boobu nga xamante ne mbëddi ibnu abbas moom moo ko woy kon nii lañ koy defee guddi gu jot ba weer bi teroo ba léegi ci lañ nekk moo tax Medina Baye bu weer bi teroo rek gàmmu ñu ngi ci gàmmu noonu la ñuy nekkee di dem di dem di dem di dem ba bésu ga ñu jàngal ko ci biir tànt ba su ko defee su ko defee buñ dee ba ci fajar ga nag dañuy doog a jàng li nga xamante ne mooy burda burda buñ gàmmu ba ci fajar gi ci la sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadoul Amine Ibrahima si bi nga xamante ne mooy taxawee gàmmu gi wala képp koo xam ne moo taxawee gàmmu gi buñ gàmmu ba si fajar moom mooy jàng bur si la ñu doog a jàng burda su ko defee nag loolu mooy li nga xam ne noonu la mit ne baay di koy defee su defee bu boobaa nag sëriñ bi ñu tas kaamil bi ñaanal ñi ñu tasaaroo ba gàmmuwaat baay dafay màggal judd gi dafay màggal li nga xamante ne aussi moom mooy ngénte li baay bu juddoo yoonu sallallahu bi mu juddu muy isna su guddi leylatu isna achar awal su ko defee mu màggal ko muy judd gi ñu dem ba nga xamante ne ci ngénte li ci mu màggal ko bu ñu ngénte la aussi bu jullee timis ba pare incha allah bu gàmmu gi lalee dañuy def jàngaat li nga xam ne mooy mawlid bi moo tax léegole da ngay dégg ñi naa mawlud mawlud sax oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mos na ko corrigé fii bi euh, jamono Cheikh euh, Ahmed Dame Ibrahima Niass bi mu bindee discours am bi mu binde mawlid mu ne ko jërëjëf sëriñ bi yow muy indil mawl mawlid moo gën mawlud mawlud mooy kuñ jur mawlid mooy ku judd kon mawlud boo gisee demee ci calendrier yu bëri ñoom mawlud rek la ñuy wax ba ñi nga xamante ne dañoo jàng nasaraan sax bu ñu wax mawlud bi ndax commencé na mais mawlid mooy juddu gi te boo demee ci téere bi sax mawlid lañ tudd bi ñu koy tiitee tax ni atu lañ def def min qabliha bàyyi nag min qabliha tax ni a boobu bàyyi def na bu mel noonu moom it def na bu mel noonu waaye moom bu ñuy gàmmu dañuy gàmmoo li nga xamante ne mooy tax ni bi nga xam bu ñuy mawlid bi nga xamante ne moom la Mouhamadul Busayri moom la bët euh, Baddi Ibn Abbas def kon lii daal mooy différence mawlid ak burda burda li ñu toog di def ni tuddul burda téere bi moo tudd burda téere bi moo tudd burda buñ gàmmoo ba si fajar si lañ koy doog a def bu ko defee nag kon loolu nga xamante ne yaakaar naa ñu bëri dara leen raw ci Kossy TV te incha allahu rabbi te nii la ko ko seene continuer ba gàmmu ka su ko defee bu boobaa gàmmu ga képp koo ne koo nekk rek da ngay ànd ak Kossy TV di dundu gàmmu gi comme gàmmu ki nga xam ne muy gàmmu international dama koy wax toujours ne lu tax gàmmu international dafa war a mun nekk lu tax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla def na ko ma arsalnaka illa kaafatan linnaas maa la yónni ci mboolem nit ñi kon comme que yonent bi dañu ko yónni ci mboolem nit ñi kon fu ñu koy màggalee ñëw ñëpp dañu faa war a dajee waat moo tax tey boo ñëwee Medina Baye làkk bu nekk da lay da lay uur boo fi làkk ñu tontu la xeet bu ne ci àdduna bi dañ ko dajee duñu wax ne àdduna bi yëpp dajee nañ fi waaye àdduna bi réew mu ne am na ñu fa bàyyeekoo ñëw fii ci Medina gàmmoo si ci ci ñi cinq continents yëpp dañu ñëw fii ci Medina kon loolu ñu ngi ci ndokkeel ki nga xamante ne mooy xalifa bi Cheikh Mahamadul Mahi Ibrahim bi nga xam ne mooy xaadimul umma kon umma bi yëpp tamit ñu ngi leen di ci gàmmu gi muy gàmmu international ci Medina bàyyi nga xam ne damay wax ne bu senegal xamoon valeur yi Medina bàyyi valeur yi Medina laa waxuma nit waxuma mais Medina Baye bu ñu xamoon valeur bi borom nu ngi ko sañcee kon bu boobaa lépp loo xamante ne rek ñu ngi koy def dañ koy jiital ci dëkk bi muy medinatu cheikhul islam El Hadj Ibrahim bi nga xam ne moom jeexam ci yonent bi kenn mënu ko nattale dem na ba nga xam ne ci niru na yonent bi ci lu nekk niru na ko ci ay doomam niru na ko ci ay toppam dem na ba wax ne sax man ne wa man alit fana daaw bi ma bi mahmudin képp ko xam ne jur naa ko man dama koy tuddin ci yàlla man sallallahu alayhi wa sallam walaw balagu alfan donte dañoo ma junne yonent bi laa leen tuddee moo tax boo dee mahamadul maahi mahamadul makki mahamadul nangam dem nañ ba laaj ne ko lu tax aja abdullah yi nga tudd ko abdullah mu ne yonent bi abdullah ci tur yonent yi la parce que yàlla bi mu rañaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallazi asra bi abdi abdula ko fa tuddee kon kooku ci tur yonent la dem na ba nga xamante ne mu wax ne man raama darki fi ishtiyaq nabiyana faqad raama amra mustahala képp koo xam yaa ngi jéem a sàkku di xam sama mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi def loo xam dafa jomb dafa haram dafa haram te moom yonent mooy léppam mooy guddee mooy mooy suba mooy ngoonam mooy lekkam mooy naanam kooku mooy Mawlana na Islam El Hadj Ibrahim ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel mboolem adduna bi képp koo xamante ne yaa ngi suivre Kossy TV ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal ki nga xamante mooy Moussa Bité ak ñi nga xamante ne caméraman yi mu ànd yëpp ak ñëpp nga xamante ñu ngi toog di suivre ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax ñu nekk Europe fu ñu mën a nekk rek ci adduna bi di ñu foofu sax laa bëggoon na ñëw wàllu diaspora ñu ngi lay seetaan waxtu bi toll nii boobu léegi wàccu li nga xamante ne nii moo nekk tey direct bi kon mu nekk tey mbégte goo xamante ne nii lii jafe na lool tey euh, cent nangam personne ñu ngi toog fi waxtu ñu toll nii di la bàyyi xel si kàddu yi ak xam-xam yi am solo yi nii kon tey euh, picc nga sa kaw bàyyi xel maa ngi suuf suuf kon baax na tey ñu jagleel su suñuy mbokki internet yi nga xamante ne ni ñu ngi commentaire liggéey bi di ko rafetlu bu baax Cheikh Moussa loolu dafa am solo parce que dama koy faral su ma demee télé boo ñëwee da ngay dégg léegoo léeg ñu ne yéen bu ngeen toog yéen du ngeen ñu fàttali yéen ñu nekk ci biir te dëgg la gis nga boo génnee tukki sa lay nekk su ko defee kon li ngay dund yëpp parce que dund nañ ko gàmm moom wax dëgg fi yàlla moom ñaanu ñu fekk ñu fenn fudul Medina Baye gàmm fu mu mën a ne ci àdduna bi fu ñu mën a ne bugguñ ko fenn fudul ci àdduna bi waaye beneen événement la fu ñu fekk moom la xew waaye gàmm mu fekk ñu fenn ci àdduna bi fekk ñu ngi dund fudul Medina Baye parce que fii ku ne la nit ñi jugee ko fu ne ci àdduna bi ñëw kon loolu am na solo kon ñu ngi ndokkeel ñëpp ñi nga xamante ne xam nañ ñi te nekk ci Europe bi bu mënuñ buñ ñu buñ mënuñ tudd tudd waaye yéen ñi nga xam yéen a ngi suivre euh, euh, Kossy TV vraiment wax dëgg fa yàlla ñu ngi am mbégte bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñu ngi wàcc pour gàmmu si yal na yàlla indi leen ci jàmm ñi nga xamante ne aussi it mënuñoo ñëw bu ngeen ko kale ci Kossy TV ak yeneen chaînes yi nga xamante ne rek yàlla may na leen chance ñu mën a ñëw fii parce que damay ne Médina nekkul ne ku télé bu nekk ko attan attan direct léegu-léeg ñu noon lu ñuy del du ñuy def dang di dangal am na benn côté ñun war nañoo jug waaye nag ku yàlla dig jàmm wala yàlla digg la li nga xamante mooy xéwal yaakaar naa mooy ñëw lu mel nii damay may artu di wax ne di lancer directement suñu président de la république ne nañu fexe lii di RTS nañ fexe ñu boole ko ñu boole na baay xam ne na baay ci Sénégal Medina Baye ci àdduna waaye nag damay gaa yi dañuy faral di wax ne sëñ Moussa moo doon wax ne euh, ñun mbiram mi maanaam ñun média soxlawuñ ko déedéet parce que Baye tey bu doon doy bu fi nekkoon tey jii positif yi gëm naa ne Baye moo koy financé parce que tey bu ñu daan tukki moo ne alawtul bihaara zaxiratu ay na nii alawtul qurra wal muddina bal hajibala aromu ridal baari li nusrati diinihi wa ubrisu li lil jili jadid misaala baa yëg na avion loolu la communication la yëg na avion yem gaal pour lan jël info pour dimbale diine ci dimbale nag boo ko yóbbu fenn booy dem dafa am communication communication booy dem da ngay joxe ci information information bi doon joxe mooy information bi nga xamante ne moom la yàlla jox yunti yàlla ma sallallahu alayhi wa sallam ne ko balligh ma unzila ilayka li mu wàcce ci yow yonent bi sallallahu wax wa nag wax ne nag balligu anni walaw ayatun doon bal jotal leen kon loolu la Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu doon tasaare ci àdduna bi ñuy sant yàlla bu baax a baax dañu yàlla boolee ci ki nga xam ci ëttu Mawlana Cheikhul Islam Alaaji Ibrahim Niass nga xamante ne lii sant yàlla la képp koo xamante ne yàlla boole leen sant yàlla la du ndam waaye sant yàlla la ñu ngi ñaan yal yàlla dimbale ñu yal na yàlla aar yàlla sàmmuñ di di gërëm di ñaanal imam Cheikh Tidiane Ali di ñaanal suñu kilifa yi suñu kilifa yëpp ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax a baax bi nga xamante ne ñoom tey jii damay wax ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la anhu ni mu taxaw woon pay bi tey ñoom bàyyiwuñ ci leen ñu ngi ci boo demee ba si ñu ngi taxaw ba nga xamante ne tey ci waay dëkk bi yëpp soo ñëwee si jumaa ji da nga fekk ñoom Moussa ñoom Diop ñoom ñu ngi taxaw façon taxaw boo xamante ne si jumaa ji taxaw boo xamante bu ci ayib la yaakaar naa nii rek ñoom it jamonoy bàyyi am ñu fi nekk di koy doxalee comme noonu Euh, Cheikh Moussa nekkul nekkul lu lu nit di loolu yàllaa koy jagleel nit yàllaa koy jagleel ñi nga ñëwee toog defee direct nii ñoom ñu ma nekk si jumaa nekkul ne télé bu ma ne mën a taxaw fii loolu daal ñu ngi ndokkeel bu baax baax di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu jàmm gàmm gi ñu yàlla ci yàlla ñu bokk jàmm di wax ne daal nañ euh, képp ñëw Medina na nga ñëwee na nga yóbbu na nga indi yóbbu boo xamante ne maa nga indaale sërite boo xamante ne taqwa lay nekk alquran dañu fay na xayra zaad at taqwa gën ci yóbbal mooy ragal yàlla soo ñëwee indaal ragal yàlla booy ñibbi eh, ragal yàlla dama koy wax ne toujours ne bàyyi dafa nekk koo xamante ne gis nga ba muy ganee Tayba daf ñëw bi Tayba jiitu ko ilaahi taiban wa taaliban wa xaadiman wa ayban bi manzili mubarakin tunzul nii wan pam hunaa jamee aman xasa parce que xool lim ñëwee ci Tayba kon loolu ba muy ñëw ba Tayba dafa ñëwee ci euh, teggin ci lu nekk ci matière yoo xamante yu baax la te loolu it ñu nit noonu la war a ñëwee fii ci Medina Cheikhul Islam El Hadji Ibrahima Niass di ndokkeel àdduna bi yëpp di ndokkeel waa diaspora bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñu war a ñëw yàlla yàlla indi leen si jàmm ñu mënta ñëw kan leen ko si positif bi ñu ngeen ndokkeel leen ziarewaat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di jéggalu nag mbooleem lépp loo xamante ne dégg nañ ko rek muy loo xamante waruñ koon wax wala muy njuumte ñu ngi koy dégg nga xam ne jàmm matadi la rek ak boo xamante dafa xamul lottu loolu taxaw ci roon keppaar goo xamante ne yaakaar naa la dañoo waroon jëfee li alquran wax ne wala tarfoo aswaatukum fawqa na bii al ulama warasatul anbiya ulama mooy borom xam-xam waaye médina fii ko fi borom xam-xam la kon yàlla moo ñu natt rek ñu wax taxaw wax fii rek waaye du xam-xam bi wala du du daraja du dara asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu la jërëjëf kooku mooy imam Makhtar Sylla nekk ki nga xamante ne borom xam-xam la taxaw si kanamu écran bi tey ñii tey nekk mbekk si Kossy bi waaye nekk mbégte it si ñi nga xamante ne ni ñoo nekk suñuy mbokk internet yi nga xamante ne ni ñu ngi commentaire liggéey bii di ko rafetlu bu baax a baax Tamsir mbay nee na macha allah imaam kontaan nañ bu baax a baax waaye Abdoulaye Dia ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax di ko ñaanal yàlla tawféex bu baax a baax waaye tamit Omar Kane nee na macha allah liggéeyu ko si TV macha allah Naar Diagne kooku moom sàppo lañ koy wax dëgg-dëgg amuñ benn yoon fayam ñu ngi koy ñaanal yàlla tawféex bu baax waaye comme ni ma ko waxee woon démb damaa bëgg nag tey jii ñu seq benn waxtaan bu gàtt bu ndaw boo xamante ne ni surprise la xamante am lu ma leen di andil ma xam na nag eh, bëggee li Mawlana Cheikh Ibrahim fi mu toll si yéen ñi nga xamante ne nii yéen a des ci eh, internet bi yéen des ci liggéey bi ma andil leen ki nga xamante ne nii mooy suñu aji waxtu yu jamono mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg mooy ki nga xamante ne nii suñuy nooyi suñuy bëgg-bëgg suñuy naan suñuy lépp tey moom la muy Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima si bàyyi ak jëmmam ñu tegal leen ko ci écran bi léegi nii ngeen gis ko mu wax la tamit ne guddi gin ñu toll nii guddi kan la kooku nag ñu ngi ciy ànd ak Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass Baye bisimilah. mooy guddig mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma kër yi ma nekk wàccoon damaa bëgg nag ngeen may ma kër yi bu baax a baax gis ngeen borom guddi gi mu ngi noonu Mawlana Cheikhul Islam Aj Ibrahima Niass yal na yàlla fayal ñu ko yal na yàlla yokkul leeram tax ñu si barkeem guddi yu gën yëpp moo ci gën at mi am na juróom-ñaari guddi yoo xam ne ñoo gën ci at mi guddig ajjuma guddig suba la wari guddig suba la ñuy tabaski guddig tamxaret ak guddig nisfu shaabaan yooyu nag yooyu guddi ma jëkk a tudd seen ngëneel yonent bi feeñal moom ngëneelam yonent bi feeñal wax ne naka lay wéete ci nit ku wé ku naa lii bëccëg la yooyu baax yépp li leen tax a baax mooy la ca xew guddi laylatul qadar yàlla wax na ngëneelam wax ne li ko taxa a baax gën guddi yi mooy malaaka yi dañ cee wàcc ak jibril su fekkee guddi gi malaaka yi wàcc ak jibril gën na guddi yi ndax loolu kon guddi gi nga xam ne ci la yonent ki nga xam ne mooy sangam malaaka yi nit ñi ñëpp guddi gi mu wàcc moo gën guddi gi laylatul qadar ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawuñ def gàmmo ni ko xeet wi defe léegi ndax yonent defu ko ndax xelu nit di màggal boppam waaye ba yonent génnee àddina nag da ko dale ca maas ak ñetteel ga ba fii ci tey xeet wi yépp daje nañ ci guddi gi de ñi di ko màggal di ko dundal ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sama xeet duñ daje ci réer lépp loo xam ne xeet yu daje nañ ci gannaawam rek na nañu wóor ne loolu ñu ngi dëppook yoonam kon nag gàmmoo xabaar yi yonent yi la jëkkoon laa ilaaha illallaah kon gën a dëgër waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak